ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak seen seen leader bi di people di nuyu suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm di ndokkeel suñu mbokki murit yi ci màggal gi nga xamante ni fa lañ jógee di ñaan lépp lu fa ñaan rek yàlla na ko suñu borom nangu waaye nag di ndokkeel suñu mbokki tijaan yi ci gàmm gi nga xam ne fa lañ jëm di ñaan yàlla suñu borom yëpp jàmm ñu dugg ci bismillah ne kenn dootu ko présenté mu di Cheikh réew mi tey nag ku ne gis na ah, nouvelle bi nga xamante ni am na biir ah, Benno wala biir APR muy ah, ndomba li nga xamante ni kii di président mag Sall jël na ko jox ko Ba ak yeneen ak yeneen ñu war ko waxtaane Cheikh bi ñu ngi lay dalal di la nuyu. maa ngi lay fay di nuyu képp koo xam ne mu ngi seetaan site bu mag bile di people 221 di ndokkele taalibe Cheikhu Tidiane yi radiyallahu anhu ci laylatul katmiya gi ñu jugee. di ñaan yàlla ci barke Cheikhu Tidiane yi yàlla neen dundu dee ñu panguñu ci yoonu Tidiane te ñu doon dëgg-dëgg Tidiane. Mm-hmm. ñi ko doonut yàlla def leen jullit li suñ gëmut lislaam yàlla def leen ca lañ ne. di ndokkele mokki murit yu sell yu baax yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillahi moo woote te la mu woote du dara lu mooy ñu dimbale ko ci santale ko yàlla. Mm-hmm. Euh, ñu tuddee ko màggal. man nag ni ma ko déggee mooy ku màggali màgg képp ku màggali woon yàlla na nga màgg ku amoon ngant yàlla na sa ngant dëñ te képp ku nekk ci ron palasoor boobu tudd murit góor gu mag googu téye ko di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sampal ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulullah yàlla na nga ci dund dee ca jariñu mm. tabul bokk ci ñuy yàq dara ci yoonu murit mm. eh, di ndokkele ummatu islaamiya ci gàmm gi ñu jëm mm. def ko it wareefu bépp jullit la ndax wa maa li naa rahmatan lil aalamiina googu ci alquran moo tax gàmmu war ñëpp ab Ablaye kontaan naa dalalaat la sa kër beneen yoon. Mhm. am na solo Ameth ci màggal googu noonu nga njëkkee ah, fa laay ñëwaat Ameth màggal ñu nemmeeku ci ay xeeti ñaawteef yoo xamante ne am na fa te Serigne Touba yaakaar naa bi mu woote màggalam gi woote wu ko woon pour ay caaxaan woote ko woon pour nit ñi dem fa di puukareewu woote wu ko woon pour nit ñi dem di suus màggalu ren gi ñu gis fa ay xeetu ah, ambiance mu mel ni par rapport ak worma yi nga xamante ne Serigne Mountakha joxe woon na ko lu ëpp ci taalibe yi daanaka dañ koo xaw a taalibe mosul teggi ndigale sëñ mun Muntaxa ñii tuddee seen bopp taalibe ñooy def lu leen neex ñooñ nag yàgg neen depuis jamono yonantu ñu ngi fa hmm. mais taalibe moom dégg neen ndigale sëñ bi hmm. waaye ñii mbubboo taalibe nag moom ñooy def lu leen neex hmm. yoonu sëñ tubaab bi du def lu la neex def li war la am liñ la dikk ku def lu la neex nga féetoog moom rek inal abrara la fi naim wa inal fujjaara la fi jahim donc c' est ça quoi noonu la simple. Euh, ñu cité ci ki nga xamante ne tamit moo di Mara Niass euh, ñu gis ay vidéo yoo xamante ne mu ngi toog am ñoo xam ne dañuy ñëw di fecc ci kanam ay suus sénégalais yu bari tamit ñaawloo ko ak Mara ni muy euh, wax ci Serigne Saliou moom lii Serigne Saliou moom lii est ce que loolu cëram la woon. waaw xam nga aaya ba nu mu ko waxatee am na nu ko yàlla waxee ci alquran. ne ko fenal yàlla ak yonuntu mbugal mu ngi lay xaar waaye fenal waliw moo gën a dangereux fenal yàlla ndax waliw dañoo posone yàppam te yàlla mooy borom yërmande su ko neexee nga tooñ ko léegi mu def ko tiyaabu ndax amul kilifa amut yar boroom sañ-sañ la maara bi mu taxawee ne Serigne Saliou wa ko yar ma ne ko jàkk xool ko laa xam ne dafa fen ndax waliw yàlla li gën a màgg ci moom mooy mu yar la waliw yar la moo gën a ëpp doole mu jur la waliw nga bëgg ko moo ëpp doole mu bëgg la mm-hmm. nga xitmaal ko moo ëpp doole mu yéene la ndax waliw yàlla boo gis yéene na màndikat ba àjjana mm-hmm. waaye nag du ko fa mën a dugal de sëñ Tuubaa noonu na man mën naa jëriñ ñëpp ba mu des ñaar mm-hmm. ku ma ak ku ma liggéeyalut waaye képp ku ma liggéeyal ma jëriñ la ku ma gëm ma jëriñ la waaye Cheikh Saliou Mbacke ni mel ci ragal yàlla ak kawe ci mujjanteelu dund wala yàlla la wilaayam di feeñ ndax fa lay mëtee. Mhm. maanaam fa la nekkee gune ci kanam mu ne moo ko yar ku ko xool xam ne kii amul ji ko sàng sëriñ Saalix bu la yaree da ngay yiw ndax dernier maqaama avant nubuwa mooy mooy mooy mooy mooy Saalix. Mhm. moom mu doon ko ci maqaama ba am tur wi wàcc ak moom ci àdduna fa mu mëtee nga ne moo la yar nga dem ba jamono màggalu sëñ Tuubaa ngay suus weeru nga. Mhm. moom dafa mel ni ku jaaxaanoon di saw boppam bi mu jógee moom rek a tooy. waaye lim foog ne loolooy mbir yi mbir yi doonut loolu de ak mbiram sëñ tubaa kawe na loolu. waa ki ko xamut amut problème. mais kii woote woon mbiram sañ tubaa te xamu ko moo am problème. donc Mara lim def jaaxalu ma naqariwu ma méttiwu ma ndax Mara la. bu ko sëriñ Cheikh Saliou defoon mu yéeme. ñi sëriñ Saliou yar te muy dëgg nga xam ne foo leen fekk ñu ngi jàng alxuraan di tudd yàlla buñ ko defoon ma gàcc mhm. waaye ku toog rek ne sëñ Saliou wala yar nekk charlatan nekk a ah, dóorkat di dóor bàyyi woo ko feebar bàyyi woo ko jaaxle di tasub say ragaloo njaaloo doo doo bàyyi vole eh, di xaritoo ki góor jigéen kooku bu demee ba màggal di suus sët gi yàlla delloo na mbàtt ca ca ca ndaa la moom wàcc na mhm. manama ci benn problème mhm. xanaa di ko féliciter moom Mara rek di ko wax ci li mu def ndax ñi gëm sëñ Bàmba te muy dëgg ci ñoom ñu ngi doon seet nan la ñuy jàngee alxuraan ba am kaamil yu bari. Mhm. xas yi day di ma di jël seen alal di ci def. Uh-huh. Mhm. moom wàcc na daal ci lii mhm. rek la nekkoon. waaw yow mal ni nga dee rek nga yeewoo. <laughs> Euh, am na solo mu nekk point boo xam ne mënuñ ci woon bañ a laal mu am tamit benn événement boo xamante ne am na fii mu di seen sunu benn frère di Jean yàlla sunu borom jël ko ci coobareem euh, mu dem mu di acteur waaye ci dem bi dafa am ay polémique ñii di wax ni jullit warul ñaanal catholique ba mu indi polémique yu bari Sénégal yow ngay borom xam-xam boo xam ne dañ lay lu amet sa jàngat ci loolu. xam nga bi nit ñi di jàngi diine man dama lekk diine ba di zéro tarixa njoganaloo faydu moo tax man suma xam-xam du bokk ak gaa yi alxuraan dafa am aaya yu xeewi am aaya yu existeetul am aaya yu ñëwagul am aaya yoo xam ne barkelu la. Mhm. yàlla lépp ci alxuraan am na lu nekk ci alxuraan du dëgg su ma ne du dëgg mooy du lu am yàlla ko lépp ngir wane màggaayam. Mhm. amul fu ñu bind ceebu jën dafa dagan mais am na lu ñu yàlla jàngale bañ mën caa togg ceebu jën. Mhm. amul fu yàlla tudd yenn mbir yi mais dafa tudd lu mbëbëstan loolu faaw ñuy dégg alxuraan. mais munoo tënku xam-xam xam lu tuuti rek ubbi sa gémmiñ di wax diine lislaam diine ji ko gën a bëgg mooy christianity hmm. chrétien moo gën a bëgg lislaam bi yenentu xatee ay mbokki boppam yim indil lislaam di ko sondal di toroxal ay nitam di leen dóor di duma di rey ba muy làq jullit ñi ci ndigalu boromam ci chrétien yi la leen dénkoon ca addis ababa mooy abasa wa tawalla hmm. an jaahumul ama diine chrétien moo gën a bëgg lislaam hmm. moom la gën a méngool mbur mbir te yonantu bi ak yonantu yàlla Iisaa seen mbir ku ko xamul mënoo xam yàlla yàlla ci ñett képp leen koy xamee mooy ci jëmmam ji ci meloom yi ci turam yi chrétien indi ñett in the name of the father and of the son and of the holy spirit muy ñett ñii dund maanaa bi ñii réeree maanaa bi yahuut yi xañ leen ko buntu wilaayatu ak bunti nubuwa yonent yàlla muhammad ak yonent yàlla <laughs> ko tëjandoon moo tax ci salaatu bi gën ngay dégg alfaatixi li ma uxliq wal xaatimi sabaq képp ku réeree yàlla waroo mën a wax ci alquran da nga war noppi wax dëgg neex yàlla mm-hmm. waaye lislaam bu taaru bu kawe bi ku ci wax ñu xeeb la lislaam rek yow yaa xeebu waaw ab Ablaye yàlla moom jaam bi ñaan yàlla amul sart jaam bi dee nga ne yàlla yow mi moom jaam bi yërëm ko nga ne lislaam moo la ko tere c'est pas vrai dafa am naafeq bu dundoon ak yonantu naafeq bu bu sooke problème yu bari ba yàlla mere ko moo tax ñu tuumaal Aysa ba yàlla wàcce fukki sa aaya ak ñaar ci suuratu nuur di ko setal yàlla bu demee ba wàccee aaya benn ba muy fukk ak ñaar ngir setal benn tuuma niveau naafeq fu mu yemoon yàlla mere ko ne yonantu bul ko ñaanal loolu dafa valable ci yonantu képp waaye du jullit yëpp du nit ñëpp te am na lu saxaaba yi def yonantu defut ko alxuraan waxu ko mais dañ leen yar ci njub bañ xam lan mooy njub islaam du pour kenn du pour ñenn islaam du varier pour ñëpp la fépp ba faw taxawal biñ taxawal lislaam moo tax àtteb lislaam ne bu góor ak jigéen séyee ba kenn am feebar buy wàlle neen toog waxtaan ku mën a muñ borom faju nga muñ boo mënul na sëy ba tas tubaab dem ba utiliser capote c'est pour nga laalante ak sa way dencante ci kaaraange mooy cosaanu capote du pour njaalo islam war a invité capote ci biir Cheikh Ahmed ne neen ko joxe ci jumaay ñu ne ko kaay tëdd kaso parce que dañu taxawal l'islam noonu leen taxawalee lislaam ba cohésion bi am ci diggante jullit ak chrétien ci jamono yonantu bul fàtte ne jamono yonantu ñu ne yu chrétien dañ ñëw yonantu puus may leen ñu def seen mees. Mhm. ñii ñu ne ci biir jumaa ji waaye lu mën a xew ci bërëbu yonantu la te neex na ko. waaw tey ndax xalaat nga chrétien yi dem Touba wala Tivaouane wala Medina Baye wala Limaamu Laay gii ñu may leen ñu def seen jàng. te yonantu mi woote diine jii ñuy wax ñun may ko chrétien yi kon am na lu ñu comprendre ci taaru l'islam. Mhm. mais ñin ñu comprendre na bu ñu waxee ñu ne ñun dañu yàqu dañu xalaku dañu nangam nangam diine fekk yaatalul sa dënn bi ba nga àttan amagoo lislaam hmm. diine fekk yaatalul sa xel mi ba nga mën a comprendre amagoo xam-xam te lislaam mooy ndey diine yëpp inna diina inda allahi l islaam yahudiya lu ci wér te muy dëgg ci yàlla la jóge christianité lu ci wér te muy dëgg ci yàlla la jóge fu ñu wutee rek nit a ko fa dugal ndax yàlla benn la mission bi benn la donc oustaz du Fall na yem ci xam-xamam fam yem du am problème mooy jëw nangam jigéen ñi di gaaruwalante di wax yooyu baax na am na ci bayre am na ci xorom mu ngi ciy dimbale nit ñi yàlla na ko ci yàlla dimbali mhm. nekk na ci muy dox ba mu am ci daaraam am ci leneen lépp lu mu am yéene nin ko ko mhm. na gën a am nañu raw nañu gën na dem ca kaw yàqaluñu dara mais na yem fu xam-xamam yem leneen niveau yu kawee mu bàyyee ñu ko mhm. waaye toog wax luñ xeebee lislaam dëgg-dëgg warul sax jullit bu xamul lislaam mais problème bi Sénégal a ko def xam nga man dama ñëw ma ne sexologue laa. Mm-hmm. lépp luy wàllum koyam kattan neen ma ko laaj. Mm-hmm. loolu laa xam. mais nag keneen spécialisé ci àtte diine keneen leneen mais benn ustaas mooy àtte diine mooy nanga mooy wax lépp yàpp lislaam weesu wut loolu. Mm-hmm. foog ñu cadrewaat mbir yi ñi xam wax ñi xamut noppi te kenn ku ci nekk ñu xam sa niveau fan la toll. alxuraan du ni nga ko déggee rek noonu la. te buñ ko taawilu du dem waaye ki war a taawil alquran fag mu xam yàlla mi wax alquran faaw mu faram fàcce alquran meloo yàlla la wala jëmm la wala kàddu la. Mhm. bu dee kàddu la yonantu musu ko bind ndax musta bind lu tax saxaaba yi bind ko. lii lépp lu ñu war a régler la alquran den ko war a régler. Mhm. moo tax maam xalifa bi muy tagg sëñ Ahmadou Bamba xaadimu rasulillah mu ne ko yaay kaamil buy dund. foog ñu xam alquran. Mhm. ñeent la du benn. bi yàlla wàccee mu doon arab alquranul arabiyan den war a xam lan la ku déggul arab mënoo firi alquran. Mm-hmm. c'est pas possible alquranul arabiyan da ngay dégg arab xam éloquence beeg spécialité alquran ba pare door koo mën a firi door koo mën a comprendre. alquranul majid moo tax nga naan xaale ne yàlla ne kii ne mbii mi kii ne jë di kii ne God says fi lawhin mahfuz waaye xamoo lawhu xamoo mahfuz <laughs> ne di firi du dem. Mm-hmm. nga am alquranul karim dafa sell ba boo jàpp doo laal lan mooy jàpp bu dee saway tax ngay jàpp saa yoo jàppee sawan ci yow ndax jàpp nga bu dee ay puub la puub baa sa biir bi ndax jàpp nga bu dee doxot la ngelaw génn na ngelaw a ngi ci biir ndax jàpp nga lan mooy jàpp nan lañuy jàppee ça c'est très important pour ñu xam ko. Mm-hmm. sell goo mënoo laal alquran bu sell. Uh-huh. Mm-hmm. mu des nag alquranul azim fu yàlla de yàlla alquran boobu mu ngi fa doon di alquran. Mm-hmm. donc yow xamoo yi ñëw toog ci tele bi ne yàlla moo ne indi sa benn aaya <laughs> aaya firiwul noonu de aaya day dox day màgg day day day day nelaw day yeewu waaw day day dund fii day dee fële alxuraan du téere bii nga gis mm-hmm. foog ñu xàmmee loolu nen noppi jullit yi képp chrétien bu dee dem leen ci église ba dem leen ci gunge ko dem leen ñaanal ko yàqut seen diine Hmm. te day rafetal mbokk gi ngir dëkk bi baax imagine nga problème am ci dëkk ñu ne jullit yee ko waral kon islaam baaxut hmm. yow nit ki bu muy dund da koy tuddee doom am na jullit yu tudd George George Ndete Diop hmm. am na jullit yu tudd Gabriel Gabriel ci Diagne Golbert Diagne ay turu chrétien la waaye yow di nga ko tuddee doom dina la may nga lekk bu dee nga ne doo ko ñaanal ñoo am diine ju bonta soxor ci nit ñu ko wanee waaye lislaam du dara lu mooy yërmande ak mbëggeel oustaz mhm. bu ko wax man ma ne da ngay fen yemoo ci mën a fen ak fen waaye da ngaa xamut alquran mhm. maxtaar saar moom laa wa moom mànduwut ragalut yàlla yemut te dem na dayoo te moom pas-pasam ba tey ñu ngi koy weerante wér naam wérul mhm. moom lu mu wax kenn waru koo faale donc waxuñ dëgg amuñ xam dañoo gàttañ am na solo euh, mu nekkoon ay points yoo xamante ne tamit euh, mënuñ ci woon bañ a ñëw waaye amee nag ñu ñëw ci cëppaandaw li mu di euh, cité bi nga xamante ni tey président Macky la jël na ko kii di Amadou Ba naka nga jàngatee loolu. man waxoon naa ko ma ne leen Macky Sall du tànn ku mooy Amadou Ba te du dem deuxième tour ku bëggut a ñàkk nguur fu ñuy xasee Amadou Ba di ko palaal di ko fexeel bu fa dem bu fa dugg. gi diggi ginnaaw Macky Sall gi ma la Amadou leen ci bind bala sant premier tour jàppal ñaari numéro yi 59 pour cent 62 virgule lay gagné réew mi dem. ñi xam nekk ci kanam ñi xamul nekk ci ginnaaw ku fi dof-dof lu ñu taqale sa baat ak sa bopp amul demal maa ngi ñëw lenn rek lay wax nguur gi ak président Macky Sall eh, Ali Ndiaye Ali Ndiaye Ali Nguy Ndiaye. Ali Nguy Ndiaye waaw buñ ko topp ci dara dafa bëgg a relevant neen ko bàyyi noonu kenn du ko fàtte ndax amul xorom amul bës. Mm-hmm. waaye buñ ko bëggee topp si dossier mu am benn benn doole bu méritowul da ngay mel ni existé wul. waaw koo téye sa loxo bi doo ko yàkkamti ndax du rëcc. Mm-hmm. neen ma dimbalee loolu buñ ko tudd buñ ko taas. Mm-hmm. Amadou Ba premier tour lay génn. waaw waaw fan nga teg loolu. ci Zahir ak ci Batin Zahir bi mooy ñi bëgg Ousmane Sonko xam neen diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko xam neen ne du noonam te yéenewut ko kaso yéenewut ko lu bon. Mhm. ndax relation personnel Amadou Ba ak Sonko tax na amadu Ba génn ci gouvernement 4 ans. ñu mhm. xam-xam neen kon ñoo ñu ameel neen Amadou Ba bor képp kuy kilifa diine bu tekki dara ci réew mi Amadou defal na la teranga ba nga rus ko ndax gor ku ko teral mu rus la. organisation ak association yi ak homme d'affaires yi nekk ci réew mi parce que Sonko dafa yàq lu bari li mu yàq mooy ñaata homme d'affaires ñoo investiroon ci moom duuloo nguur gi ñàkk seen xaalis te tey projet boobu dem na haba an mansoura xam nga arab su ne haba an mansoura mooy kasaara <laughs> kasaara mooy lu demul fenn léegi projet sonk bi ñi dee ak ñi xeex ak lépp fan la mujjeegum pour l'instant sonk dem na kaso parti ba tas na nit ñu noppi neen fa la mm-hmm. la ca kanam ak ëllëg nag yàllaay ki yeeyoo xam ko mais fi ñu toll nii habaan mansura mooy kasaara wala su la waxee kasaara rek mooy nga fuuf sa ballon ba mu yàgg mu ne pëf toj perte nga sa eeru gémmiñ perte nga liiti ballon moo tax ñu naan tiital sa baay yàq sa xaalis donc tey om d'affaires yooyu yëpp ñu ngi ci ginnaaw Amadou ba pare dafa am ñu Amadou créé ba ñu doon liñ doon mm-hmm. mais maa ngi koy dénk moom amadu na xam ne mooy président réew mi na yaatu uuf ñëpp man duma campagnal Amadou Ba damay jubilé anticipation ndam li pour première tour ba ma koy wax tànnuñ ko bañ ko tànnee ci loolu lay insister ba keroog bi yàlla di defee lu ko soob dafa am benn walliw daa daan def revue de presse lu war a xew boo ñëwee laaj ko ko benn waay war a judd ñu ne ko lan la mu ne góor mat bi yàgg ñu ne góor la doom ji di judd mu ne góor la mu judd di jigéen mu ne ba bi muy génn maa ngi gis sàkkar ak góoram bi mu ngi génn waaye bi mu génne la yàlla soppi lu ko neex maa ngi koy sant di ko gërëm te ko wali bu mag la mm-hmm. waaw donc Amadou Ba képp ku xam baatin bu leer te muy dëgg xam nga ne premier tour lay jàll te moom rek la Macky mosoon a mënoon a fal Macky falut ko ci sentiment mais daf ko fal ci mérite. Mm-hmm. te nag nawle dafa foor waaye Amadou amul nawle ci réew mi. mais est-ce que Amadou am na capacité yoo réew mi. am na capacité yóbbu Afrique fu ko kenn yóbbuwul mais réew mi moom cabinet la ci moom ndax njiitu réew du dara lu mooy vision da ngay am vision benn plan Sénégal émergence li mu ci def xam neen ko. lijjanti xaalis ku ko ci dàq xamul ko te am na kenn ku nekk ci amadu Ba bëgg ko jiital ko maanaam jox ko lépp muy Lat Diop plan Sénégal émergent xaalis bu jigéen bitim réew bureau Lat Diop la daan jaar te Amadou la jox bopp. ki mën a gañ a Kaolack léegi nii si Maodo Ndiaye raxma la Amadou lay doon xaar président wax ndax daf ne gor laa président laay déglu moom laa bëgg duma wax lu mu waxut. waaye su tànnee keneen ku dul Amadou du gënal mais bu ko tànnee moo ma gënal. te Kaolack kenn mënu faa jaar wax ak kenn gañe dara te mun njaarax ma bokk ci. ndax Kaolack den ko ameel bor. daf leen defal teranga sëriñ buubu ñëw fa wax a wax ba nit ñi gëm ko ndekke moom la muy wax dara du ci dëgg. donc tey ñi nekk ci ginnaaw amadu nee naa la njiité da ngay am vision am ay boroom xam-xam am ay ndaw. am ñu am chemistry nangoo liggéey nga jiital leen réew mi dem ci kanam lii mooy njiiti réew soxlawuñ ko sell pour nga doon jiiti réew. mais ndax jàppoon ni tamit mënul indi réeroo ci seen biir parce que yaa ngi koy wax léegi Aly Ngouille dem na ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne. d'accord tekki dara Benno Bokk Yaakaar ak tekki dara ci réew mi du benn. Mhm. Cheikh Ahmed Cissé Mami Cobra euh, Mam Ndiaye Savon suñ taalee live cinquante mille personnes woote seetaan. Mhm. mais buñ demoon électeur duñ am cent. ku ne ak la nga tolloog fa nga am doole xam sa bopp nag ci jaamu yàlla la bokk. Mm-hmm. Cheikh Ahmed yow la ñuy topp rek nga posé candidat taxaw da ngay gàcceel sa famille. Mm-hmm. dina dina mel ni maam Maajoor booy. Mm-hmm. zéro rek donc tey tekki dara biir APR parce que am nga nomba tànk tekkiwul ne tekki nga dara ci xol yi mais Abdoulaye da Diallo respecté naa ko borom xam-xam la kilifa la borom alal la defkati lu baax la. mais bu taxawoon élection man ñeme naa dem taxaw wala ma jiital maam Góor Jasaaka xorom ak bayre ak nit ñi bëgg la ak wóolu la ci mbir du benn sëñ Mountakha bu noon def leen ñu def mais bu taxawoon candidat du du gañe ndax nit ñi wóoluwuñ ko ci nguur ci seen diggante ak seen borom leen ko wóolu il faut ñuy différencier les choses te bañ a jaxase yu bokkul dama la bëgg taxul nga tëdd ak suma jabar suma jabar suma jabar la mm-hmm. donc Amadou ci zaahir ak ci baatin moo am capacité Benno Bokk Yaakaar téyewaat nguur gi doxal mais ñi ñi xam elmu ndujum waxuma ñu koy wax de elmu ndujum xam-xamu biddew astronomie jëlal tur yi moo tax bun Abdoulaye Dione ndeysaan bi ko gars yi doon campagne ñu ne tuddut bun <laughs> ma ne leen bun de baaxut. te pourtant ñëpp rek ñu ne bun mi ngi ñëw <laughs> bun mi ngi ñëw. loolu sax te pourtant moom ba ci man. mais bun bun moo tax ñu naan Muhammad parce que xam neen ne ginnaaw Macky rek Ahmad la. Mhm. borom xam-xam yi ñu ngi ci réew mi mais imagine rek Amadou Amadou Amadou Amadou réew mi po waxandoor Amadou Ba gin gin lii dafa neex maanaam turu campagne sax Amadou Ba dàqale <laughs> you know du benn mais buun mi ngi ñëw buun mi ngi ñëw loolu xalaatoo ko. Mhm. ak ADD man <laughs> ma ne ko mbata ñu bëgg a dee. <laughs> donc Aliou Nguy Ndiaye lan mooy Nguy. dafa am tur yoo xam ne sa àndut ak président <laughs> franchement. Mhm. te jox naa leen respect nag mais duma la jox respect ba nga tere maa wax li ma bëgg a wax. Mhm. Mhm. Euh, Ahmed am na solo. Euh, jërëjëf am naa mbégte ci jàkkaarloog fii la vraiment da ngaa xat waaye mu ah, mosuñu laa ñaan dara. ci nga bokk ci nga bokk voilà donc tey bu amee message boo xam ne da nga koy lancé waale aussi tamit. li may wax rek mooy su ma àndalaa buri sox régu doy ah, waar. bu coow li bëri ba ngeen fàtte ko ndax. Euh, góor ñi ni ñu newee kàttan daf ma jaaxal mais ak man léppay jeex. Mm-hmm. Amadou Ba nag maa ngi koy jàppale bugguma xaalis bugguma dara na ma dénk wàllum awra ci réew mi. na mm-hmm. créé loolu ma yoral ko ko jubbanti awra yi dëgëral leen guddal leen képp laa ko laaj. Mm-hmm. waaw laajoon naa ko Macky ba mu ngi waaja a dem falagut ma ko xëj na dineen waxtaanaat maa ngi ko war a gis fan yi waxoon naa ne waa Pastef suñ ma ko mënee jox far Sonko dem kaso yal na ko yàlla dimbali mais Amadou Ba daal jàppale bi ma koy jàppale xam nga ma nitu intérêt la. su ma intérêt mooy mu falu def ma ministre awra ma téel ko ko lu jëm ci Mauritanie maa ngi fa jëm la le 14 15 16 17. consultation gratuitement naar yi ñëw leen ku gàttale ma guddal ku tuutale ma rëyal ku nooy la ma dëgëral mooy su ma ittee su ma fa jógee Gambie laa jëm bu Gambie bi dinañ ko après Europe après Amérique man maanaam ci àddina nit ñi di defaree nopp nangam man koy laay defar wax dëgg yàlla. ndax xam-xam bi ma am dama gis ne nit ñi mën nañ cee jëriñu mais wàllum koy nit ñi leen ko rusa wax nit ñi di ci rusa faju te jàngoro la. Mhm. di di conseil nit ñi nan leen war a laalee nu ñuy defee consultation gratuite ku ne 15 minutes. Mhm. Mauritanie laa jëm 14 15 16 17 ñu xaar ma foofu. Mhm. Tavrax na ci ginnaaw ambassade Amérique bi fa laay dal donc euh, suma garab yi pour jënd suma garab bu authentique bu am garanti ñeenti numéro la Sénégal 77 372 96 96 benn ñaareel ba 77 285 38 38 ñaar ñetteel ba 77 478 12 12 ñett ñeenteel ba 78 598 06 06 bu dee Gambie 396 33 396 6 332 3966332 wala 59 555 55 am na Amérique am na Mauritanie donc maa ngi sant people 221. actualité temps ngeen di jël réal ngeen di jël gis naa Pawlish mbay di laal. Uh, buuse Pawlish na xam boppam xam lu mu war a wax am na yenn wax yi daf koy dugal moom ndax ni buuse di dundee lay dundee. Mhm. lan mooy métier Pawlish fan mooy biroom ci bës lay dund kuy dund ci bës doo xas kuy dund ci bës foog ne tey danga nga relevant tey soo waxee dëgg ci kawam dëgg boobu mooy sa xaste ëllëg mhm. ñaar ñu bokk métier dañuy mayante vie mhm. mais du duñ xañante vie d'accord donc na bàyyi xelam ci loolu bu baax. Euh, am nga bayre nit ñaa ngi lay déglu ak mën communication du benn. Hmm. mën communication ak xam ko du benn li mu wax daf koy gaañ suba. Hmm. te suba vidéo leen koy tegaatal. Hmm. ndax fi Wally jaar ak moom bu Wally summi woon dal bu ko téyee war na ko bu ko téyewul du gor. te situation taxawee nu muy def. te Wally du sëriñ. woykat la mais woykat bi Wally doon ci la ko teralee ba bañ xam Pawlish. comprendre nga. bi muy takki jël maam Matar Gueye biso ak ñeneen dama koo faral ne moo am dëgg ndax baay bu sànni doom doom su amee fayda sànni baay. Mhm. lan moo tax mu bàyyi baayam ji ko jur yóbbu ñi leen ñëli den ko taxee fu ko baayam taxawul. Mhm. donc situation dem ba mu paasee gul bu mu laal buuse. Mhm. comprendre nga dafa juum na génn ci yooyu mën nga waxtaan mën nga def lu ne te doo tënk sa bopp ëllëg